gan ganu FM euh, matin euh, Sec, salam salaamaaleykum. alaikum. salam George. yow ya secrétaire général du syndicat euh, démocratique des travailleurs de la santé du secteur social du SDT. 3S noonu la. affilié la CNTS/FC. noonu la euh, li ñuy gën di waxtaane moo di euh, mbas mi ak euh, troisième vague bi nga xamante ne moo lëmbee réew mi ñaar fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan ci ñaari fan kot kaa yi yokkul lool yéen ñi nga xamante ne yéenay liggéeykat yi ci wàllum paj ci kër docteur troisième vague bii nii noo leen koy dunde merci Georges nga permettre ma nuyu auditeur RFM yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre di nuyu Anna. Mm-hmm. di profité ci occasion bi nga may ma aussi. parce que ma fàttali ne Anna Rocha ci waxtaan wi. exactement de ñu am benn tiis bu nu daal ci sunu centrale syndicale. ñu perdre benn camarade euh, ñu di ko wax Baytir Ndoy mhm. muy di secrétaire général syndicat nekk ci mbirum pêche ak lépp loo xam ne ci mbirum maritime la. yalla jële ko fi ci ci gaaw ñu di ko ñaan yalla yalla xare ko aljana diko ko aussi képp ko xam ne ci centrale bi mu CNTSFC commencé ci bop bi di secteur général euh, Cheikh Diop comme niñ ko posé ci question bi tay ji euh, ñun dañu tit euh, dañu tit parce que xam nga titangé wessul feebar bo xam ku nek xamna na bi nga xam mom lay mom lay wàllaate ñu gis ni bu njëkk bu nu amaan dix cas wala quinze cas dañ daan tiit léegi ñu dem ba am nañ ay mille et quelques cas te fu yokkoo rek cas grave yi dina yokk te fukkaa cas grave yi yokkoo ñuy faatu dañuy yokk te li ñu gën a tiital moo di tey jii suñu capacité demeewul noonu ñu xool ni tey jii Sénégal tollu nañ ci euh, presque ay neuf mille cas donc bu ñu tollee ci juróom-ñeenti junni cas te ñu xool suñuy capacité lii. Euh, yu nekk sous traitement yu nekk sous traitement mooy ñiy faju fu mu mhm. toll nii ñoo xam ni feebar bi téye na leen te waxaguñ ni wér nañ ñooñu boo leen jëlee toll nañ ci juróom-ñeenti junni presque euh, nga xool ni li nga xam ne mooy lal yi disponible ci centre de traitement yi tey jii toll ñu ci juróomi téeméer donc ça veut dire que am na au moins juróom-ñetti junni nit ñoo xam ni li ñuy wax bomb ambulante c'est-à-dire ñu ngi ci biir kër yi ñu ngi ci biir marché yi ñu ngi ci biir en tout cas ñu ngi dox te kenn mënu leen contrôler li koy waral moo di même stratégie bi nga xam ne moom lañuy ñuy développé mooy traitement à domicile ni ñu koy waxee sax ni ko nit ñi yaakaaree demeewul noonu c'est-à-dire du traitement. est-ce que traitement à domicile ndax ñoom ñu ngi euh, wala euh, fajkat yi dañuy dem ci ñoom wala nan lañ koy defee. non amul amul dem ci kër yi loolu mooy li mooy loolu mooy li graaw. xam nga mhm. tey jii. Euh, bu dee ci zone yi nga xam ni ci zone opérationnelle yi nga xam ni zone de couverture district yi la wala ci poste de santé. bu fekkee da nga nekk ci benn poste de santé mu nekk ci zone boo xam ne dafa polariser dana lay jox rek sa téléphone jox leen numéro téléphone nit ki kooku aussi dinañ ko jox numéro téléphone boo xam ne war na woote au cas bu situation aggravé wu te bu situation aggravé bu wootee téléphone dafay joxe signe ak symptôme yi ci la ñuy xam ndax war nañ ko mën a jël si pour évacuer ko pour yóbbu ko euh, benn zone euh, ou bien benn centre d' assistance donc yow mi nga xam ne tey jii yaa war a contrôler mënoo xam ndax nit kooku mi ngi jël garabam. Hmm. correctement mono xam ndax nit kok ci bopam mi ngi tok këram comme ni ko waxee ni ñuy isolé wu d'autant plus que dañuy nekk ci kër yo xamni c'est des familles nombreuses yow sa walu bop sax yow amone sa néegu bopp donc da ngay bok ak ñeneen ay nekk donc bu a isolé nit te la plupart bu xasse bu dugg ci benn kër du benn nit rek lay feebar donc nit ñi dina bari donc yoy yep ay facteurs la yo xam tay ji maîtriser wuñ ko te variant bi boy xol bu njëkk dañ daan wax période d'incubation bi ay 15 jours deux semaines donc dans hier mode propagation propagation bi daawul ngandé non mais tey jii ak variant bi am ci étude yi nga xamni jot nañ ko c'est entre trois jours et six jours ça veut dire lolo, tax nga gis gars ni explosé wu parce que dafa gaaw wàllaate yooyu yëpp ay facteur la yo xamni ne tey soko soko ko en compte dans le cadre de la prise en charge ngay daw derrière la maladie vous risquez de poser des problèmes je le dis toujours euh, li olof yi di wax naan bu day amé su fekkee da ngay jëm naan da ngay uti ndox di fay daaba te jéemoo créer li tubaab di wax pare-feu ça veut dire que foo fay rek beneen foyer mi ngi exploser té lolu mo ni dal ci moyen bi nga xamni mom la utiliser pour mëna a xeex. Mm-hmm. dafa mel ni euh, Cheikh sek luñu wara war euh, mm-hmm. wat mm-hmm. ci euh, xeex mbas mi bëri xam ci walu prise en charge maladie ci bopam waaye itam anam ñu ñuy communiquer ak askan wi dafa melni ni dafa am benn défiance bu ñu ko légui par rapport ak kilifa yi ken déggatul message non du du du bon je ne dirais pas que défiance en tant que telle mais dafa ni dama ni dama ni nit mom bu la rek ci sa doxine la c'est-à-dire que euh, nit bu la aussi ci ci ñi ngay comporter yoo ak mom par à dire ci autorité yi lañ ko commencer parce que autorité yi su ni ñom ñoo wara joxé le bon exemple joxewuñ le bon exemple c'est day difficile trop pour population bi nga mel en même temps aussi parfois acte uni posé dans le cadre de cette lutte dañuy am ay calcul yu ñu def par exemple ñi ngi yaakaar ni tey jii bu ñu jëlee couvre feu wala ñu def état d'urgence wala ñu def ay loo xam ni dafay restrendre kii bi ñi ngi xalaat population bi jóg def ay marche et mën na mën na am

xam nga ki xam ne mënul xëy am dépense am ak ni mu mënta demee am na loo xam ne boo ko créer muy restriction rek bu amee période boo xam ne période bu gàtt la parce que mesure yooyu boo koy jël na nekk ci période bu gàtt. Hmm. par exemple mënul durer ay 20 jours wala 30 jours. le temps que nga maîtriser la situation mais boo ko maîtriser wu bu naree def ay 2 mois dafay am yeneen conséquences yu gën a ngand yoo xam ne doo ko mën a doo ko mën a maîtriser man affaire couvre-feu même ci première vague bi ñu ko doon wax dama dama am dama ci amoon ay réserve parce que j'avais constaté par exemple le plus réussi c'est au niveau de la région de Dakar or nous constatons Dakar une forte concentration de la population tey jii couvre les gens à partir de 20h. c'est-à-dire à partir de 20h, nous ngi toog seen biir kër or on nekk xam quartier populaire, que ce soit Grand Yoff Médina nous ñu ma du stigmatisé wala Pikine ba nga ne ñun

donc ça veut dire que es dit même pour de couvre-feu ça veut dire que à 20h les gens vont se concentrer dans une seule chambre. ak ñi lañ koy am 10 personnes. c'est pour ces raisons je je dis au-delà de l'État il faut que ku nek aussi mën am sa responsabilité individuelle c'est-à-dire yow yaay une conscience ni yow yaa a protéger protéger la population mais par exemple aujourd'hui tu euh, port de masque les gens se fermeté à ci amone ak rigueur biñ mon ci amone man batay gisumako ci toll les gens circulent dans la rue soluñu masque te nit ñi un poste la ñu diisal tay ji nit ku nek boko fa bu bu ni ko xam pour mu lijeenté 1000 francs ou 2000 francs problème la ci mom bu génné tay solu masque nga nga nga nga nga taxé ko mu fay 3000 francs même ça veut dire que ëllëg bala muy génnaat. Mhm. dina jël au moins 100 francs wala 200 francs mu jënd ci masque mu ko pour éviter ces 3000 francs yoy mu fay ko lolu lolu mal élément la ñaareli élément aussi il faut impérativement aussi diplomatie en dehors ñu mëna fermeté fermer tey foyer bi gëna ngand au niveau de Dakar il faut que les gens vérifient dans le cadre des transports dans le cadre de toutes les activités nous nga xamné ñing koy def ñu situation zone yooyu ñu mën ko wàññi mais damay damay damay damay damay revenir rek ci benn affaire il faut pas que ñu ñu ñu jël yaakaar ni uniquement suñu takkee masque bi rek dina arrêté parce que feebar bi ñaari ñaari porte d'entrée la am yu ñu gën a xam benn bi bakkan bi la benn bi gémmiñ gi la donc du ne bakkan bi xëñ na masque bi mën na ko takk te loolu diggante ñaari yu jege yoo la ci wax ak microbe de salive yi nga xam ne mën na dugg ci biir noonu mais beneen bi li ñu gën a gën a constaté te loo xam ne gars yi dañ ko mën a négliger ci loxo yi la parce que loxo yi ci lañuy ñuy donc ci lañuy ñuy virus bi bu nu paree en même temps fépp fo xam lek la ñu di ko dugal suñu biir gémmiñ suñu loxo lañuy jël donc la plupart des infections à l'heure actuelle lu ci bari diggante loxo la ak gémmiñ donc ci vélo bobu une fois ku ñu xolaat ñi nga xam tay ji euh ci distribution aliments parce que la plupart ñi dëkk ci biir kër yi ñu ci bari ndekkatuñ seen kër duñ fa agné duñ fa réré donc soit ci même bu nekkee ci entreprise am na ñoo xam ne ñooy lekk yooyu rapide yi di ko jaay. te du te du kot lekk euh, te du kot lekk yi ndax am na yenn euh, jumtukaay yi nga xamante ne dañ koy jokkalante ci loxo. waaw xam nga tey jii tey may dugg seen studio bi bu ma dee dugg ci loxo bi laay jàpp. Hmm. xam nga tey jii damay ubbi ça veut dire que tey jii bu sama loxo amoon germe ci loxo bi may jàpp nii di ko ubbi mën naa ko cee bàyyi donc war naa bu ma génnee. ma laal sama loxo gel en même temps aussi de temps en temps ñu def ko xëñ na micro même ma tim aussi loolu mën na cee nekk. désinfecté naa exactement non xam naa loolu non dama la non je sais bien que yéen koy fait parce que fekk naa ni teg ngeen ay gel ak lépp même salle d'attente bi yëpp fekk naa ko ci c'est une façon de parler parce que ñi may waxal peut-être nit ñi mais ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci feneen te loolu war na leen mën a permettre da ngay dem ci ay surfaces yoo xam ne dañuy jaay ay lekk muy ay mburu saa yoo xëyee ci quartier dañuy jënd ay mburu mburu ci loxo lañ koy def ci këyit lañ koy laxas ka lay jaay mburu da nga koy jox xaalis xaalis ba ngay jox mën na tax mu jël dugal ci yoon te même même même xaalis bu mu la jàppee loxo loxo boobu lay jëlaate jël paaka bi daggaat ci mburu jël mburu bi wala mu laxasal la ko mu teg mm-hmm. donc ça veut dire que mburu mi yow mu nga yóbbu sa biir kër yaa ngi koy dugal sa biir boo jëlul temps tàngal ko aussi loolu mën na nekk ay facteur donc mm-hmm. élément yu ndaw ndawaan la yoo xam ni muy fii que muy ci hôtel yi aussi parce que tey jii ñi ñi togg lekk yi nekk ci hôtel yi ci quartier la ñuy jóge tey jii bu nu amee feebar la ñuy di ko distribuer ak ñiy dressé ak yooyu yëpp la même chose ça veut dire que yow da ngay ñëw ci zone boo xam ne yow yaa ngi yaakaar ni fii euh, cet gi am fi wala sécurité am na fi alors que ben détail bu ndaw rek mën na la indil dégâts. Mm-hmm. ngénte mën na koo nekk mën na nek dëj parce que kenn mooy yor mbaname di togg ka yor mm-hmm. mbaname di togg mooy di ñam yi kooku fekkee am na feebar mu dugal ko ci ña lekk te lekk lool loolee tax ñuy euh, recommander nit ñi mm-hmm. euh, éviter rassemblement yeeg déplacement yi sank wax nga ko situation bi fimu tollu jamono ji ci première vague beeg deuxième vague bi ay 100 cas 200 cas lañ doon am tey dem nañ bay am ay 1000 cas près de 2000 mille cas euh, fajkat yi ci première vague bi ñen ñangi doon wax sax ñen ah, ab burn-out tey gii est-ce que yéen fajkat yi yeen nekké keur docteur est-ce que yeen a tenir. non en tout cas la situation est grave. man man li lay wax damay woo samay yenn kol am na yu bëri da nga len wo ñu ne ma maa ngi dama dama corona et pourtant ñu ci bëri sax vacciner nañ ah. vraiment vacciner nañ pour vous dire rek que situation bi même vacciné téréwul nga xëñ na nag avantage que nit ñi dem nañ dem dem vacciné wu parce que au moins dina mën éviter yenn cas grave mais tu dis la situation est extrêmement difficile pour les travailleurs non seulement il y a l'insuffisance personnelle mais la pression elle est assez importante parce que pression bi nekkul rek ci gérer maladie nekk CTE moy ñi nga xamni moy mooy lay wax moy quelque 8000 personnes yoy nga xamni amuñu place man rek damay toog ci yàgg kuma l'hôpital xam ni hôpital lay liggéey téléphone est-ce que sama yaay dafa feebar fi mu toll nii mënul noyyi aw ma place wër naa dem naa Dantec ñu ne amul place dem naa CTO ñu ne am place foo mu mën a jàppale et loolu la ñuy dund chaque chaque jour wala nga gis nit ñëw indi ay malaadam ñëw ñu ne ko centre bi fees na alors que parrainage sax du war a jàlle noonu parce que dafa am dispositif boo xam ni bu la décelé nga nekk positif ñoom ñooy corroné pour mën a envoyer malade bi ci zone boobu yooyu yëpp dafay nekk ay éléments de pression yoo xam ni dans les zones en même temps dans les services de réanimation aussi ku nekk xam na cas de décès yi bu njëkk ay benn lan doon wax actuellement ñaata nit ngay dégg ñu ne dañuy faatu légui dañuy dem ba 10 personnes 20 à 48 heures wax na Tu gères une gérer ben malade de réanimation hum. ci nit c'est quelque chose parce que nous, avons ko xamni tek le système de monitoring da ngay contrôler constante tam yëpp ba nga xam ne benn du ci du ci am faay. te du chargé non non bon équipe la mais équipe bi y' a combien de malades qui hein? sont dans la salle de réanimation. donc système de monitoring muy muy muy muy élément cardiaque yi muy sur le plan respiratoire muy sur le plan même des des autres organes endocrines yi nekk ci biir yaram bi yëpp bu ci nekk war nga mën a mën na mën am benn façon boo xam régulation la boo xam peut-être euh, appareil monitoring bi mi ngi foofu mi ngi koy mi ngi koy def mais bu détresse amee tu es obligé de réanimer le malade réanimer la plupart du nekk benn nit ça veut dire que vous laissez les autres malades vous êtes trois à quatre personnes ku ci nekk yaa ngi jéem a soit massage cardiaque wala lépp pour malade et la plupart du temps ça peut te prendre dix quinze vingt minutes ou même une heure de temps et la plupart hmm. c'est désolant da ngay def li ngay def lépp après vous perdez le malade. les gens sont en train de vivre cette situation extrêmement difficile mm-hmm. dans les services de réanimation et c'est vraiment dur. Mm-hmm. moo taxoon euh, sànq Cheikh mm-hmm. est-ce que euh, ci sais, gis-gis lan la changer ci euh, prise en charge bi surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk seen kër xam nga da ngay jaaxle boo gisul médecin N'est dit que, en tout cas sentir sa yaram comme d'habitude ngay paniqué ci walu prise en charge à domicile yi lan mooy solution bi ci sa gis-gis. solution bi ci njëkk man dama ni xam nga dama wax la sank ni la damay toujours damay koy defé comme li ñuy wax daay feu bu tak c'est-à-dire que les gens ont tendance à penser parce que chaque fois bu affaire bi aggravé rek ñi ngi wax réanimation rek ngay dégg ñuy wax réanimation les cas graves c'est vrai c'est important mais dama ni bu amul cas du am cas grave donc man limay limay li may ñaax ci autorité yi moy stratégie bi ñu wara développer moy nan la def pour arrêter propagation bu njëkk bu bu ngand bi. Hmm. mais loolu ci communauté bi lay commencer tey jii ñiy feebar ñi ngi ci biir quartier pourquoi dans les quartiers à l'heure où nous sommes il y a les nawetaan qui devraient démarrer y a les ASC ak ñun ñëpp fu mu toll ni tey jii ku nekk chef de quartier té amna ici ICP bu fa nekk on peut même avec les jeunes avec les vacances boyer yi toll ni peut-être ñi def bac ak affaire yu demee mais ñeneen ñi nga xam ne par exemple nekkuñu classe d'examen, examen am nañu liberté am na ay jeunes yoo xam ne intellectualité sensibilisation lu yomb la des formations yu gàtt yu yu peut être trois mois ñu def ay sentinelles dans chaque quartier ou bien chaque coin, pour que mesures yi nga xam ne la pour éviter ces genre de situation ñu mën ko def kiy jaay gargote wala kiy jaay ci mbedd mi am na koo ñu cible par rapport à ce genre de situation pour les suivis des malades aussi la même chose ces relais là que l'on appelle les relais communautaires dans chaque quartier identifier 20 par exemple personnes pour chaque maison chaque matin nous kun jeunes ñu jël est-ce que garabam yi ont ngi koy fiche ça permettra au moins de par rapport à la situation. Il y a une approche en dehors de du cadre communautaire. Euh, ci ci ci biir mi nga parce que test aussi test test c'est vrai parle de fiabilité par rapport parce que bien, test non mais cest dire voilà non non c'est-à-dire li tax wax nit ñi nit ñi euh, hôpitaux yeeg centre de santé yi mhm. mais privé par exemple clinique ñëpp ngi ci clinique yi fess fees fa del tay ji war mhm. nañ permettre à ces cliniques ñu am ces tests là c'est-à-dire du du du du du question euh, centralisée, correct mhm. légui ça permettra ñooñu bu ñu amee loo xam lu suspect la nous mën faire un prélèvement pour demander à l'inspecteur de confirmer mhm. c'est extrêmement important ça permettra de gagner du temps que nous ki mënul ay trois jours bu mhm. ko test muy parce que les fu toll ni tellement débordé nañ da nga ci limiter le nombre de tests parce que aussi ña nekk ci laboratoire c'est des nombres limités donc dafa faut lu nu mën de jël par jour parce que taxi il te faut 24 heures pour avoir ces résultats. Je suis très heureux bu par rapport euh, à la vaccination ñu ngi haute immunité euh, collective mais nous, ils sont tous en train de courir derrière leur deuxième dose euh, d'AstraZeneca est-ce que ci sais, gis-gis nu ñu dose de l'eau est-ce que baax ou wala baaxul non mais c'est baaxul mooy li la wax cest tout le de satisfaction xam nga en tant qu'agent de santé la prévention elle est permanente. c'est mm-hmm. toujours d'ailleurs même dafa am au niveau du ministère euh, dafa am géré le ne ñooy programme élargi mm-hmm. de vaccination Nous avons une structure aussi une structure d'alerte là pour épidémie fu nous déclencher parce que nous avons du par exemple une ay rougeole déclenchée, mm-hmm. par exemple saa ay épidémie de méningite même lèpre am na temps mais am na ñu un truc de surveillance qui permettre nga l'autre. nga donc si vous ça permettra à ces situations Nous régler régler Mais Un problème. un hmm. problème oxygène bi hmm. ñu manqué l'hôpital Vous da nga manqué parce que la demande est assez forte parce que vous mais aussi amna ñeleen li ñuy wax borom ñi ñi ñi ñi am sen post fess yeen say dañuy jënd oxygène bu fekke ne ki na yobu ko ci sen kër non non est ce que lolu bon gisagumako et yaakaru mo wala ci privé lañ bon peut-être peut-être parce que oxygène euh bo xolé sax hôpitaux yépp amnañ unité ñun ñun suñu hôpital cto amnañ unité bo xamni day défar oxygène mais lañ ci défar dogul capital moy lima lay wax rek bu de ñun li ñuy noyé ni ay 3 litres wala affaire demone lañu soxla par minute mais tay ji bu nit ki nekké ci problème de ça par exemple dina soxla ba 15 litres parce que moom def donc bouteille yi day te donc oxygène dafa xaw dafa xaw dafa xaw cher hmm. donc lolu aussi fay indi ay ay ay ay conséquences yo xamni peut être mën ñu ko def surtout ci pré-réa hmm. bi jërëjëf hmm. Cheikh sek secrétaire général euh, du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social di gërëm ana Rocha di ziar Cheikh Tidiane Diaw ak ñi